salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey 26 juin 2024 ci wàllub tàggat yaram dinañ wax ci Ansu Fati ak Barça ah, nan la mujjee dinañ wax ci Everton Iliman Ndiaye nu mbir yi di demee dinañ wax ci xibaar yu bëree bëri tey tegal leen lépp ci taal bi Copa America bi nga xam ne am na démb mu ngi noone Argentine ak ñoom Canada ñoom ñëpp football ah, mu ngi noone mais balaa dara képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube bi ah, bu ko tàyyi duggal nga abonné nga bës bouton s'abonner bi di liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir dugg ci euh, xibaar yi euh, di leen leeral que ni Argentine démb nag moom moo dóor euh, mu ngi noone match la boo xam ne nii Lautaro Martinez wane na ci boppam bu baax a baax nag Lautaro boo xoolee 31 minutes képp la joué ci deux matchs yi mu am ci deux buts mu doon loo xam ne si quelque chose dafay dugg entrée en jeu dugal à chaque fois 88e ci lay dugal ñu ngi fàttali match bi nga xam ne jotoon na contre kooke ñu naan ko Canada. Canada. Ah, non la il a gagné, il a, il a, il permet, il a permis aux, aux de gagner ce match ah, par la marque de 1 but à 0 contre Koke Nyonanko. 2 buts à 0 bokk ah, contre Koke Nyonanko Canada bii nag contre Chili la woon Lautaro Martinez dugg aussi débloqué situation yi dugal l'unique but bi nga xam ne moo permettre ñoom Messi ñu gagné match boobee ngeen gis noonu ne Canada aussi moom mu ngi door 1 but à 0 ñoom it nga xam ne ne vraiment Koke euh, Nyonanko Jonathan David. moom moo dugal la l'unique bi euh, de Canada Pérou nag lañ dóor mu doon match boo xam ne nii vraiment c'était très serré mais Canada wane na fulla ak fayda grâce à leurs attaquants bi nga xam ne moo nekk foofee ca lii euh, Lille euh, Ligue 1 française mu ngi noonee mu gagné am match boobee match Pérou Canada bi nag gis nañ ci benn gardien de bii bu doon sauvé arbitre bi nga xam ne assistante la assistant la mu blessé mu am malaise daanu moom moo ko mujjee sauvé léegi nag médecin yi ba ñëwee lañ mujjee euh, complète affaire mu doon action boo xam ne ni bu daw yaram la mais heureusement que y avait un gardien là bi nga xam ne ne euh, wuyu na turam vraiment gardé na amu euh, kooke ñu naan ko arbitre bi moo image boobu ngeen gis nag mooy Copa América bi Argentine joueur bi argentin bi ba que joueur bi rëccee xamul nu mu war a def mu jàpp tànk bi comme Kylian Mbappé démb na ko joueur polonais bi jot a def mu ngi noone loolu moom. da nga koy stoppé par la force doole mbaam kookee noonu ko Ilimane Cheikh Ndiaye ah, moom nag mu ngi passé visite médicale am en ce moment ak kookee ah, ñu naan ko Everton jóge foofee ca Olympique de benn année képp kundung la fa def jotu fa am réussite nag c'est normal euh, coach yi euh, euh, aussi temps waroon amu ko woon foofee ca Olympique de Marseille ba tax nag amul woon confiance actuellement nag mu ngi passé visite médicale am ah, ko Everton Samuel Eto'o ancien joueur Everton moomee nag mën naa ni dañ ko ko euh, tuumaal ci wàllub ay match yoo xam ne da ko truqué ci wàllub corruption waaye signature euh, d'un contrat avec une société de paris sportif ces accusations sont très graves toute personne reconnue euh, coupable de ces faits devrait être bannie à vue du football kooke di Samuel Eto'o en ce moment gars yi ñu ngi koy toppee loolu ñu ngi xaar la suite nu mbir di mujjee nan la ak naka la en tout cas cool yi daal bëri na mu ngi noone gars yi ñu ciy wax baax a baax pour koki ñu naan ko Samuel Eto'o pays des Galles nag bu nga xam ne bàyyi na football actuellement Henry ah, mu yore équipe bi pour mën leen a jàppale bu baax a baax fii ak euh, mën naa ni année yi di ñëw ah, boo xoolee kookee ñaan ko Thierry Henry mu ngi ci euh, équipe France jigéen ñi ba 2025 xamuñu nag nu muy mujjee ba xam dafay dem foofee ou pas ak lépp lu ci mënti am dinañ leen ko tegal ci euh, njekk ak teranga kookee ñaan ko Moise Kean nag jamono ji ji jege na pour war a dem signer foofee ca Fiorentina ci lu toll ko 12 millions d'euros Juventus la war a jóge pour mën a dem foofee mu ngi noonu lépp ci mënti am di ngeen ko jot ci njëkk ak teranga beneen attaquant ñu naan ko Isaac le Suédois moom nekk foofee ca Newcastle en ce moment jamono ji mën naa ne Chelsea mu ngi ci teg euh, tànkam teg ci xar tànk di pour war koo mën a jël mu doon euh, joueur boo xam ne nii mën naa ne ay conversation jot naa am entre ñaari club yi l'attaquant suédois coûterait plus de cent quinze millions de livres sterling mu doon loo xam ne nii cher na trop trop trop pour boo xam ne nii mën naa ni du dugal plus de trente buts par saison non football nag parfois dañuy euh, dawal loo xam ne nii doo sax comprendre ay mbir yoo xam ne nii vraiment. damay ragal euh, dina gën a compliqué pour yeneen club yi nga xam dañuy bëgg ay joueurs nag yenn prix dafa énorme ci ay joueurs yoo xam ne duñ dépassé sax lu mat vingt buts ci saison ay quinze dañuy dugal seen maximum et tout c' est vrai ils sont techniques dañuy mën a football mais tamit euh, li tax ñuy soxla attaquant dëgg mooy but comme ni Eric Kane di def euh, kooku mën nañ d' plus de cent millions d' euros il marque des buts il marque des des buts si match essentiel match mais c'est léegi daal nu leen neex la ñuy jëndee joueur équipe yi ba tax nag yeneen équipe yi loolu da leen di porter préjudice leen bu baax a baax ñëw ci kookee ñu naan ko Ansu Fati defaat na retouram foofee ca FC ab Barcelone li yéeme ci mbir mi numéro 10 bi moo koy garder ba léegi ci pré bi xamuñu nag la suite nu muy demee ba xam pré-saison bi dina fa toog ba euh, ñu war koo maintenir saison bi en tout cas dirigeant Barça yi li ñu bëgg ci Ansu ñu ngi koy présenter kookee ñu naan ko Hans Flick euh, pour lan ñu travailler waat kutal nañ ko préparateur physique spécial boo xam ne nii dina ko mën a tàggat pour ñu mën a retrouver Ansu Fati bi nga xam ne amoon nañ ci leen a mën a jàppale bu baax a baax ci seen équipe boobee mu ngi noonee waaye te ñu ngi ciy liggéey bu baax bu ko defee déwén mu ñëw nekk en forme bett ñëpp bu mënul nekk nag niveau bi nga xam ne moom lañ ko soxlaawee buñ gisee lu tolloo 40 ba 50 millions d'euros ah, ci taabal bi mën nañoo jaay kookee di Ansu Fati loolu la ah, catalan yi ah, génn di leeral ci mbiru kookee ñu naan ko Ansu Fati mu ngi noonee gars yi ma leen xaar ci commentaire na ngeen gisee mbiri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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ la neexee ñu lépp cent pour cent lay doon authentique lay doon te yaa koy defar réglage yi mise à jour ah, ñoo koy defar dañ koy réglé lépp balaa muy génn ci bi am bi ñu bindal ko facture non mais gars nag loo ngeen xaar pour ñëw ci sam nag fii moom lépp yaa ngi